di nuyu bu baax soxna ben mi nga xamni mo ne ci bir keur gi di nuyu ak njabotam mu seigne yusufa ak seigne bakay ak bokk yeb di am bekte bu baax baax ci jotaay bi ma tok fi fekk fi sama doom yii di sama jarbaat sëñ Maamu Ndaw Baay Faal mii ak mbooleem taalibe yi nga xam ni ñi ngi fi ñi ñu fi tudd ñu teew ak ñu teewul ñoo ngi leen di nuyu di leen xamal ne sunu xol sedd na bu baax ndax fii ma teew xam naa leen xam nañu ma fii ma teew ci sama biiri doom samay jarbaat samay bokk ci laa teew ñuy xale yoo xam ni lii ñuy def xew rek taxul ñu di ko def fortu wuñu ko itam du lu ñu fortu ci lañu juddu ci lañ leen yar ci lañ leen nampatal lii rek lañu xam mën naa am dinaa ci dikk ci kanam jataay bi nag mën naa am du yàgg lool ndax xat-xati jamono bi ak yitte yi nga xam ni ku ne xam na ni jërul kenn naan maa ngi ci yitte ku ne xam na ko waaye nag tubaab yi dañoo wax ni temps kenn du ko am da koy sàkk da nga koy créer rek dangay seetlu la ñor nga lijjanti ba def ko waaye ab jullit du am jot waaye lépp lu la yitteel rek nga sàkkal ko barab boo ko defee te lii yitteel na ma ndax ci wuy ji woote yu mel ni képp ci la ñuy yëngu te itam nag wuy jiwu ma ñenn ñu ma gën a jige sama mbokk yii ma wuy si tey ñii seen bàyyi alxaaji seex jëm ngub sama sama maga ñu sama mbokk sëñ aale Samba Gueye seen maam moom lañ ma tudde noo ngi leen di ndokkeel ci bis bii muy saamina achar fi sahri safar bisu fukk ak juróom-ñett ciw safar muy bis boo xam ni moom la sëriñ tubaa wax ni mooy bisam sëñ tubaa kenn ku rekk ci nun ñi xam ne bis ni mu toll ci boroom moo xam bis bu mën a doon da ngénte mbaa da ngay céetal mbaa da ngay am gan goo fonk mbaa dangaa am mbokkum wàcc muy waajur mbaa doom mbaab xarit maar muy sa bis boo xam ni xam nga ni lii sa bisa ku la ca wuy si wala mu jàppale la ca war ngaa xam ne am na fum la teg sëriñ Tuubaa nag nee na fukk ak juróom-ñett mooy bisam mooy bis bi nga xam ne nee li mu am lépp ci la ko am lii nga xam ne mooy xidmatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko tàmbali woon muy fas yéene liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam liggéey boo xam ne bii texeg réew mi ci la aju texeg bindéef yi ci la aju pajuk aajo yëpp ci la aju mu liggéey ko moom képp añ bi ak xéewal yi mu bokk ak woote ci nag ku ko santale yàlla may wax ni su fekkente ni bis bu ne darajay boroom lay tollool kon bis bii kenn ku yàlla bind mënu koo jox àqam da nga ciy dem ba jeex rek def ci li nga man def ci yéene waaye kenn mënta jox 18 safar bisam àqam àqam dëgg-dëgg ndeem mooy bisub sëñ Tuubaa te mooy bisam moo ko waxal boppam sëñ tubaa nag daf nu cee dimbali ndax kenn ku nekk ci noonu waroon naa jéem a seet moo man sëñ Tuubaa mii lu ma ko war a faje faye ci lu ko war a neex ngir noppal nu mu jël sunu loxo nag teg ko ci bis bii wax ni képp koo xam ne ci sama mbégte sa mbégte fukk ak juróom-ñett ci safar fu la fekkati loo mën na ko ci def sëriñ Touba nee na bis bii ku la ci man bu ko bëgg dee bu ko jéem a tee jot feeg déwén moo la xal di man ba déwén ku la ci man moo lay man ba déwén sëriñ tubaa nee na bisu fukk ak juróom ci safar fu fi ñaar nekkee kee di ko fonk kee ñàkk ko fonk faaw ki ko fonk ki ko dul fonk di ko gis leen lu mu ko tane te du xam lu tax nee na mooy bisam bis nag yombul am bis yombul léegi sax kenn ku ne bëgg bis tax na bis bi nga juddoo rek ngay def muy sa anniversaire waaye bis boobu yaa ngi ñëpp ko bokk boo ne le premier premier janvier mooy sama anniversaire du sa anniversaire yow dong lépp téeméer téeméeri nanga mi junni juddu nañ ci moomoo ko tey defoo ca dara ndax tànnoo ko ngir juddu ca xamalathu ummuhu karhan wa wadaathu karhan wa xamluhu wa fisaaluhu salaasuuna shahran kenn tànnul bis bi ngay juddu kenn tànnul ka lay jur kenn tànnul bis bi ngay faatu kon boobu bis moomoo ko bis yombul am bis yombul ku xarewul mayewoo doo am bis yaar yooyu ñooy maye bis ku xarewul mayewoo doo am way bis jëf rekk koy maye bis nag fal ayaamu wa shuhuru wa awaamu kulluha lillaahi azza wa jalla bis yi ak weer yi ak at yi yàllaa leen moom bu ci gën moroomam rek la ca xew a tax bu bis gënee moroomam rek la ca xew a tax wala fi nee nañu laaxub daaw buñ ko dee fàttaliku ci fay laa bis bu gënee moroomam rek la ca xew a tax bis bii nag muy fukk ak juróom-ñett ci safar ci la sëñ Tuubaa ware woon baar yi ci ñeen fukki atam jeexal ak ndaw takk te duggagul ci ak mage te ñeen fukki at moom la ñuy wax sannata taklif moom la tubaab bi wax l'âge de la perfection góor bu amee ñeen fukki at ci la xam ba xam góom góom day war way war dëtt way dëtt wala mu way deret góor gu am ñeen fukki at rek ci nga tàmbalee sa aspiration yëpp nga di ko mettre en réalisation li nga bëgg lépp ci lañ koy xam bu góor amee ñeent fukki ci lay tollu ci di ci man nga aawalu ca la ko yées la ko yées waaye ci ngay toll ci boo bëggee ñaareel wala nga bëgg nangam ci koy ci nga koy am ci ngay tollu ci war a bëgg kër ci ngay tollu ci war di ami gone ci ngay tollu ci xam adduna ci ñeen fukki atam yooyu nag ci la ko tubaab bi jàpp moom xaadimu rasul nga xam ne ci digg addunaam la war a yóbbu ci projet bi yëpp foofee mu tolloo ci ñeen fukki at ci la ko tubaab yi jàpp bu sëñ tubaa doon wàlliyu kon du am juróom fukki at ci àdduna tubaab yi mënuñoo mosuñoo ànd mosuñoo jàpp nit fukki at mbaa juróomi at kon lu mu bari bari doole mbaa wilaayatu ndeem wàlliyu la du ca ñaari at ñu ni fii la bàmmeelam nekk tubaab yi ñoo man tubaab yi ñoo man yonent yi kuy jàpp jaan doo faale moo tax sëriñ tubaab yi bala ngaa xam maay kan dangaa doon wàlli yu waaye ku dut wàlli yu mënoo xam maay kan baana li kulli mandoxo wilaaya kaw nii di xaarixil baraya aaya ne nitu kese rek mënu xam dangay bokk ci góor yàlla yi takk ci ndomboy tànki góor ñi xam la fa diiwaan door a xam ni sëñ tubaa kéemaan la waaye kuy leer reer ba rek dina la yandoor noddug fajar di la yee mënoo xam sëñ tubaa góor yàlla yee xam que sëñ Touba ndax la ñëpp tële woon moo ko man ci fànn gépp waaye li ci gën a yéeme nag mooy te tubaab yii te kat loolee moo fa nekk ba nëgëni si ba tey jii rek sëñ Touba rek leen jaaxal ren jii lépp daanu na doole yëpp daanu na force yëpp daanu na puissance yëpp daanu nañu xam-xam yëpp daanu nañu seigne touba rek a ne ca kaw motax lu xewati moy lu neex moy lu naqari borom touba rek lay wone inshallah lu xewati rek dooley borom touba lay wone ba ci tawat jii sax at mo xam ni ken kenn pikiruwul dem makka at mu ñu dugg ci wéru koor ba jéxal ko kenn dulliwul juma ci juma ci yak du furul fi fi touba lii daal doy naa kum taxul kum taxagul nga xam ne sëñ Tuubaa amu morom ba nag ni sii li des ci àdduna dootoo ko ci xam bisub keroog di samedi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar sëñ Tuubaa nee na bisub gaawu la di fukki fan ci weeru ut sëñ Tuubaa nee ci ca àjjuma ja wa jaala al muxtaar sallallahu alayhi fi al aali wa man walaahu lahu hijaaban maanihan min ad suma lahum si xaala la tax sal neena bi nga xamanteni bi jaayantena mak yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wara liggey yàlla gase maag tubaab yi neena aljuma ji nga xamni dañ ni bu suba la wara dem yonent bi moma feñu ci ca bari nima ahmadu suba ngay wara dem tàmbali liggey bi waye nak katana wërale la te wutalu ma ci buntu luy tak ba jub la dana fay dara du la manal dara sëriñ tubaa nee mbër mu Rasulullah téyel ginnaawam téyel ci ginnaawam du laal suuf te nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne aar naa la si ci mikaay sëñ Tuubaa fanaane taalif fanaane tudd yàlla fanaane waaj asamaan set di gaawu ba mu jógee ci kër gi dem ci jàkka ji julli fajar ba noppi nee na sun borom xamal ma ne ma xaraam na ci yow nga dellooti ci sa kër gi bul ci kër gi diggante kër gi ak jàkka ji ci la sëñ Tuubaa taxaw ñu génne leen ma yére yi fekk na yónni woon na Seex Ibra Faati ndar ceerno di wàññiku ñu di ko gàllankoor rek rek yi sëñ Tuubaa joxoon ko ab leetar yónni ko ci borom ndar bi mu doxee yónnee bay wàññiku ndaw yi waroon a jàppi sëñ Tuubaa booba muy commandant ki ak soldat yi mu àndal ak espèces yi booba ñu ngi Lugo borom daaru di jëkkantee ñoom ju ngir njëkk leen Mbàkke Baari xamal sëñ Tuubaa ni ko ndaw yaa ngi ñëw sëñ touba bi mu jullee ba nopi rek di tambale laaj nan ana Ceerno ana Ceerno bi mu njëkkee ne ana Ceerno ñu ne ko yëgseegul waaye taxul mu bàyyi laaj bi ana Ceerno ndax Ceerno yexsegul ken nopi ken du yotuko ñu ngi ko bàyyi rek muy wax ana Ceerno ba yag borom daaru ni geseet nee na fa wasaltu wa danawtuhu fa balaghtu ba'dan fa qata'ani nee bima yexse rek jup sëñ bi tam li koo bëgg a nettali yoon wi sëñ tubaa nee na eh, borom daaru nee na sëñ tubaa dog ma ni ma ceerno dara mutumaa wax ceerno mu ne ko mbàkke mu ne ko dara mutumaa wax bi nga taxawee ca dett mbeer may wax borom ndar bi wax ak tubaab bi sangalee wi xorondoo bi sa sa yel bi maa ngi moom ceerno mu ne ko mbàkke mu ne ko loo mel ni ko jàq nii mu ne ko mbàkke jàq jot na ndax tubaab yi nee nañ na nga mën a ñëw ñëw mënoo ñëw seeni ndaw fu ñu la fekk dagg sa bopp yóbbu wa maa ala rasuli ilal balaax sëñ tubaa ne ko ceerno mu ne ko mbàkke mu ne ko ndawi borom ndar yooyu ndawi yàlla leen fi jiitu Seydina Jibril ngoo gi di fi bàyyi ko dem leen génne yére yi rek ñu génne gaalam yooyu ak maxtumeem ya ak téere yam bëgg a yóbbu fekk na laxasaayu na ay kaala ca ndigg la ba ca dënd ba muur na ay kaala ca bopp ba tuuti di feeñ ci xar bi mu yor alxuraan sew ruuj sëñ tubaa ngi naan inni lam arju siddiqan wala axaf aduwan ragalu ma sama noon yi may bëgg a dajeel ma sama sopp yi sama ginnaaw ndax yéen yii li ngeen may bëgg-bëgg dinaa toog diir bu yàgg boo xam ne bii dootuma ci gis kenn kenn dootuma ci la ab kenn dootuma ci nuyu léegi yàlla tàggale ma ak yaakaaruma leen ragaluma ñi may bëgg a jàkkaar lool bi ay dil jundi daaruma ay la daa zawi jahli li tadlili awdan min ko fas sëñ tubaa nee bañ ma téyelee déglu fas wi fas wi wax wéru wét aw mol la di jàkkeer ju ngëlëmbu eh, jàkkeer ju jébb ngëlëmbu lu jébb doobu ñeenti tànkam yëpp la ko tàmbalee ca weewa ba ca wax ba ca soj cango bu njëkk ba dafa weex jëbi weex tàll nga xam ne day mandargaal wax waxtu yu juróom nee na ba ma yéegee ca kaw fas wala gouvernement bi yàlla bépp war ànd ak man rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu fil bahri hina aduuru sëñ Tuba tàmbalee testé nag dongo yi di seet fu seen xol toll ak fu seen xaatir jëm waaye bi mu leen làmbee xam na ni ñoom ñëpp ànd ak moom fetal jihaat moo ne ci seeni xol kenn ku nekk ni ko mbàkke nañ dee ba jeex mbàkke nañ dee ba jeex rek bala ngaa dem sëñ Tuubaa ñu leen ëpp naa def xare ka daw daqul ka dee daqul mag lu mu def daw mbaa mu def ko dee mënu ko ña ko defoon nag sikkuma leen am nañu ndam waaye jaloore jann la maay borom jaloore borom a koy nettali la boppam fii ka sahaabi yi fii ka iyaabi bi laxtiraa bi la kantimaa yi ndam nag mënees na koy nettali borom waaye jaloore borom a koy nettali boppam sëñ Tuubaa boroom jaloore juróom-ñetteer yu manqué yetti weer kenn tegalu ko cin musul ni fu ma jëm musul ni lu ma leen def musul la saalit musul la faat waxtu musul la ñànki fu mu toll mi ngi tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fu mu toll mi ngi julli fu mu toll mi ngi jaamu yàlla ñu jàpp jëmmam ji séq ko di ko féq di ko nattu di ko pinti panta di ko yeew di ko fetal lu ne def nañ ko anabtu iswaajahooni bil azalakumo warultumul kullu li misal masakini mu dox dem ci boromam foo ko ba sa fekk xam ne moom rek nga fa fekk seen natt yooyu ak wéetaay woowu ak sori googu musu ko tàggale mukk ak sagoom musu ko tàggale mukk ak bëgg gi mu bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ni muhammadun zikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru xalbi wa ahdaai wa raxaati juróom-ñetti yu manqué yeen ñetti weer dans les îles fantômes du Lagué ku xam réewum Gabon fa mu nekk xam ngeen ni Gabon gañ yóbbu woon borom Touba mu Dakar Gabon Dakar Libreville moo gën a sori Dakar Paris ndax Gabon ci Afrique centrale la bokk ci Afrique de l'équateur la nekk dafa sori lool dëgg la ci Afrique la waaye ci xattu lasta bi la nekk ci Afrique de l'équateur la dafa sori lool ba noppi doon réew moo xam ni soof sa dafa yaatu dafa am superficie ba noppi amul densité nit ñi dañoo néew ba nga si Gabonais yi mataguñu 3 millions d'habitants néew lool. te booy noggutu ku la ëpp doole koo ëpp doole dangay bëgg fu wéet foo wéet moom di ko noggutu tubaab yi moo sax ku mes ni sànq gabon lañ lay yóbbu ba noppi gabon ci boppam dogal xol bi dëgër Sénégal gi sax ku fi doon dóor gone sa yoon nekkul da ngay daal di gis mag dikk dox seen diggante atte leen waaye gabone bu romboon ku ñu rendi yoonam du ca nekk seen xol a dëgër ci mën a seetaan loolu moo tax tubaab yi tànn li gabon di fa yóbbu ñaañ faral kuñ ma sa sànq gabon lañ la sànq foofee lañ yóbbu borom tubaab mu daj fa lu ne bo jange xesse guñ wax rumna shukura lizi bil kafi wa nuni ma shaa yafalu min badil wa maknuni wala nga jange xesse guñ wax li rabbin xafuurin xad maha ani zanba wala nga jange xesse guñ wax raditu anin mawla ta la li rabba ci ngay xamé nat yi tuba bi tek seen tuba lu ne def nañ ko ko togg sax def nañ ko ko dugal ko ci cin bana bu reey reey ñu dugal ci borom tuba diko xam ba togg sax def nañ ko ko yew nañ ko fetal nañ ko yeew nañ ko bërigo ferluur ba mu wax ko ci biir géej gi keroog wax xasida ala inani usni ala inani ar usni ala xayri munami wala ashtaki lil xaqi min faxdi an umi booba ñu ngi ko yeew ci ay buumi kaabal ci bërigo ba mu wax ko ci biir géej muy tagg rasulullahi di yuuxu ca kaw ba ati géej jeex ñu indi ko ci réew mi ñu defee ni day noppalu novembre la bisi décembre janvier février mars xam ngeen ni novembre at muy jeex le 1902 décembre janvier 1903 daal di teru ca de ñu jalax ko bu demati fu metti fu bari fu a fu bari borom xam-xam ñu yobbu ko fa ngir dénigrer seigne Touba ngir bëgg ginaaw ñom ay naar ay naar lañu ay borom xam-xam lañu borom alcorane lañu talibé far ci mom ci naar yi yobbu nañ ko yobbu nañ ko yobbu nañ ko yobbu nañ ko jarar yobbu nañ ko khumaga yóbbu nañ ko tuntu siin fu ne fu gën a sori fu gën a bari deseer ñu yóbbu fa borom Tuubaa naar mujj di jébbulu ci moom di ko way doon ay taalibeem dégg nga mu naan lahu sanaa'i wa ridwaani bila saxatin musxaadali min bani daymaan ansaara kiimaan gu ne def na ko gànnaar ñu mujj bañ nii mu def nit ñu ñuul ñi mu def ko nit ñu weex ñi tax ñu delloosi ko yóbbu ko jolof 1907 ba 1912 Jolof a métti ci mboolem maraaxili borom Tuubaa yi lekk amul ñuy dóor taalibe yi di leen contrecarrer ba ñu fekki ko ku sa yenu ab ëmb jëm Jolof bu la jàppee dañ lay rey mbaa ñu dóor la waaye murid yi gën dogu gën bëgg sëñ Tuubaa fu mu ñu fekk ko fa fa lil hajji miqaatun waxtu ka daa'imu fa laysa ila shahra jumada wala rajab nit ñi di walwali rek di ko fa fekk ba 1912 ñu ne nañ ko indi njaareem ca xërëm ya ca séeréer sa ndax ginnaaw mënuñu ci moom dara nañ fexe ba taalibe yi mu àndal ñu yóbbu leen ci suuf su ñuul soo xam ne si njabar ga ak mooy yàlla ga ak sàngara sa dana tax ba taalibe bi dootuñu dem fenn sëñ Tuubaa ni leen def ngeen lu ëpp raamu masiri ila jurbel la daal la sa Chine لو عينوا سر ما في سهر ما راموا فالسير موت على من ناز ووعزن وأنه لي إبقاء وإكرام بم دمين جاري 1912 ب 1922 ديرو لما لا واخ 1895 ب 1922 سيرن توبا نينا سايو 18 سفر جوتي فوك جوروم نيات سيو سفر سايو جوتي لوما يالا نات وون لوما تيغون سي جافي جافي لوما تيغون سي مصيبه اكي تيورو دنج كوي فول فول موي

sëñ tubaa nee na ma waaj ba jëkk ngir di seenu nattu yu dolliku ak tiis yu dolliku nee na sun boroom xamal ma ni ma ahmadu ma ni ko labbayka rabbi mu ni ma li nu la dencaloon lépp ci ay nattu ak i tiis ak i coono dënnu nga leen ñedd nga leen ba jeex na takk desee la tuma lu dul ab añ akok pay ba adduna jeex ak barsàq ak ci àjjana sa tey juneeti mooy dàq sa démb sa ëllëg ju mooy gàcceel sa tey incha allah sëñ tubaa nee na keroog suñ borom jox na ma may goo xam ne gii ñeenti araf la daj la dëppool muy abré muy abréviation ñeenti araf muy alif ak raa ak nuun ak baa suñ borom ni ma ahmadou defal naa la ijaabatun lépp lu nekk sam xel bala koo saw làmmiñu tudd naa la ko may isa ma jara fikri ilal ayi saatan ataani nawaalu min ilaahi mun a baha ahmadou bis ni ki tey defal naa la reddan wa rahmatan loo defate am ci ngërëmal yàlla bu ñëpp doon jaamu yàlla ngay nelaw yaa leen di ëpp yool sëñ Tuubaa mu ni damma hawaaya li la si ajaada wa shakar firaasa wa sijaada sëñ Tuubaa nee na yàlla dëppale na ngërëm ak sama bànneex nee na lu ma neex defal ka ca lal lu ma neex defal ka ca der ba su ma neexee ka fanaane julli ak fanaane nelaw ñoom laa yemale ay may mbind la damma hawaaya li la si ajaada wa shakar sajaada wal firaasa wa sajaada nee na su ma neexee man ahmadu te fanaan ca der ba ak fanaan ca lal ba ñoom laay tolloole ay may lu ma ci am ci ngërëmal yàlla nee na sun borom defal na ma keroog ñaamatun laa tarxatu abadan xéewal gu dootul dog mukk ba àjjana xam nga ni sëñ Abdou Lahad Mbacké jàmbaar ja noonu na man duma ñaan naataange ndax naataange joo gis bekkoor a cay topp waaye li may ñaan mooy xéewal waaye loolu ren ji wane na ko xoola at nii te gii màggal mës sa am ci adduna te jii ci tàkkusaan am na ku ñëw sama kër ni ma sëñ Bousra nag jeex na takk takk takk ci daral yi nag amatul ni ma nag jeex na takk loolu mës ta am ci genn màggal màggalu fii jamono bi toll nga xam ñoo ngi toll ci xapp suuna déqee guñu gerte yi baykat yi amuñu dara entreprise yu bari tëj nañu fabrique yu bari tëj nañu ñu bari wàññi nañu leen fii jamono toll ñuy màggal ñu ni nag jeex na loolu musta am kooku mooy borom tubaa mu ne sun borom defal na ma ni'matun laa tanqatihu abadan xéewal gu dootul dëgg mukk ñu ne ko ak lan mu ni ak barakatu dunya wal axira yàlla yëkkati na barkeb adduna ak barke barkeb alaxira teg ko ci sama loxo barke nag dafa mat a xam mooy lan barke dafa wuuteeg wërsëg sëñ touba néna al barakatu tustara wa risqu yu'aru néna barke des koy able wërsëg des koy able motax tax nit di am ba yag mu ñak ko waaye barke des koy jënd te nit ki lu mu jënd moko mom moom sëñ tubaa nee barke defut lu mëna xol bo xolé man nga ko baña gis bo lambé do ko daj waaye néna lu barke nekk ñu xam ko lu barke jóg ñu xam ko sëñ tubaa nee man la yàlla barkel sama lépp barakali fi maskani wa mahi man xaadali masarata samaa yi sëriñ bi keroog la wax ni sama bis bii ku fi ma a wàcc yàlla liggéey liggéeyloo am nga bis benn muy bis ba la yàlla gërëme wala nga tooñ yàlla muy bis ba la yàlla jéggalee nee na bii bis mooy sama bis te kenn ku nekk nag ci sa bis ci ngay xam say soppe Cheikh Abdou Lahad Mbacké nee na sëñ Touba nee na bis bu ne àdduna la yem ba mu des màggalu tuubaa nee bu ñu demee yomal xiyaam ba atte jaam ñi ñay dem ajjana dem ajjana ñay dem sawara dem sawara jaamu yàlla jeex na sawara kenn du fa topp yàlla ajjana kenn du fa jaamu yàlla ajjana genn waa ajjana genn jaamu rek lañuy ñu jaamu muy sant yàlla sant rek ajjana amatul julli ajjana amatul koor ajjana amatul aj makka jigéeni ajjana duñ gis póot duñ mbërëg duñ ëmb ajjana di su fa génte di su fa céetal ajjana di su fay courant di su fay ndox ajjana deesatu fa magat ndax c'est en vivant que l'on vieillit ajjana dang fay sax te doo màggat mir'atu aswajiha abdanihin naam abdanuhun naam isduri asba abdanihan isdóori sarajat waye seigne touba nee boba nak notion du temps amatul ndax yàlla sun borom def na waxti jant bi fenk ngir ñu xam kañ la tisbar kañ la takusan kañ la timis kañ la ñuy wor kañ la ñuy wori ajjana nak lolu amu fa la maqtuatin wala mamnuatin wa furushin marfuatin يالنا يالله ورسك لي أجنة نحن بنجنا من أجنة لي أجنة يباخو باخ نيخ أقومبو أكتر أكسل أغلير تري ولفك فرق جروم نكت سايو يكسيش أجنة يالله مينك خم لونا خم نفهم تولو دنا دولي تارو أجنة أغلير أجن الله أجنة أكبر كب أجنة أكتر بنيخ كش أجنة أك موسيقى كش أجنة ba waa àjjana xam ne tey jii la 18 safar te la fukk ak juróom ci weeru safar kon boobu bis ku yàlla defal tawféex nga dib jullit dib taalibe di ko fekke ko boo dee asgor te xam li la sëñ Tubaa defal